doon wax chimie sëriñ jéeri waa daan moo mag sëriñ Tuuba juróomi at ci saayir woote ni ci yoonu yàlla tamit